mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am Oui, euh, c'est Abdou Nying. Euh, je suis haut conseiller, euh, expert maritime également. je suis le coordonnateur du GAMO de Tianaba.

Et nous avons également contacté les autorités. Nous avons fait des rencontres avec le sous-préfet, le préfet, avec le gouverneur et même avec le ministre de l'Intérieur. Bien que euh, la prochaine fois, on fera maintenant euh, ce qu'on appelle le CND, euh, une commission nationale de développement. Et donc, nous sommes en voie. Les services qui, se, qui ont été contactés ont déjà commencé leur activité. Et je pense euh, au Sénélec, je pense euh, à l'hydraulique, je pense euh, aussi euh, à la communication, euh, la Sonatel. Et donc, euh, nous sommes en, en, en, bonne voie actuellement. Et nous, tout cas, nous avons l'esprit tranquille. Et si le, le, le, le, même rythme continue, nous espérons avoir, nous espérons faire euh, un bon gamou euh, le 7 euh, octobre, le 7 octobre 2019 euh, prochain. La santé, le problème d'eau des dispositions Effectivement, des dispositions, de bonnes dispositions d'ailleurs ont été prises. nous avons eu l'aval du ministre, l'aval des chefs de services régionaux. Sur ce point, nous aurons 25 camions euh, citernes, nous aurons 50 bâches à eau. Nous avons déjà commencé à installer des pompes au niveau de nos, euh, de nos, de nos forages qui sont actuellement en marche. Il y a une réflexion totale. Et donc, nous pensons que uniquement avec les forages, nous aurons assez Mais du fait qu'il y aura un pèlerinage les, la population va se multiplier même par 10, par, par, par 100, on, on a aussi prévu euh, avoir des bâches à eau euh, en dehors euh, des citernes qui sont dans les, euh, dans les maisons. Et ces citernes sont actuellement en train d'être remplies par les camions citernes qui viennent. Et donc, euh, vraiment, nous avons l'esprit tranquille sur le plan d'eau Euh, nous, nous, pensons que nous n'aurons pas de problème. Revenez avec nous, M. le sur le thème de cette année, la position de l'islam et les, la diffusion de fausses nouvelles. Oui, euh, effectivement, euh, euh, euh, le développement de l'Internet, avec le développement de l'électronique, les, les réseaux sociaux, il y a des créations de fausses nouvelle et des diffusions de fausses nouvelles. Chacun peut, chez soi, dans, dans, dans sa chambre, euh, dans son salon, euh, créer euh, un message, le diffuser sur place à, au monde entier sans avoir à se déplacer, à s'inquiéter. Et donc, nous, nous pensons, et le Khalif général a pensé qu'il va falloir tirer l'attention de la population des talibés sur ce fait néfaste de créer et de diffuser surtout de fausses nouvelles. C'est pas bon pour l'islam, c'est pas bon pour le talibé, c'est pas bon pour la population, c'est pas bon pour le Sénégal, c'est pas bon pour le monde entier. Et donc de ces autorités, le Khalif général Baye Assane sec en est conscient et à appelé au euh, service euh, scientifique euh, à la commission scientifique de faire des conférences, de faire des sensibilisations dans ce sens pour que euh, les talibés, les jeunes, les enfants et les femmes euh, prennent conscience euh, de ce fait néfaste euh, de créer et de diffuser de fausses nouvelles. à l'appel des talibés qui vont venir le jour du mardi, euh, c'est être serein, être d'abord un talibé, euh, croire en Dieu, croire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi et à cette occasion le khalife général Baye Assane Seck invite euh, les autorités, il invite euh, les talibés, il invite ses collègues euh, euh, des autres confréries et il invite le Sénégal en entier, le monde, l'Afrique et vers en tout cas une prise de conscience vers le travail, vers la droiture vers en tout cas un esprit saint, un esprit islam, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf coordonnateur mm. wolof bi moo xam ne dañuy tënk si yenn pàcc rek. waaw wax gàmmu wax mbooloo bi dajee. Mm. Euh, matuwaay yi ngeen jël ci ren nawet la ñu ngi génn aussi si mbas mi amaana ne mm. laaj na. ay euh, matuwaay yi ngeen jël wax nga ne def ngeen CLD CDD CRD ba ñu waajal sax CND bi. waaw ndax mënees na wax lépp yemb na fi ñu toll.